واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم waaw euh, bisimilah ba léegi kon rek ci atub euh, daara ji daarul maarif al islaamiya bi nga xamante ni sunuy mbokk daairatu muxaddamatul xidma euh, ñoo koy amal ngir tasaare xam-xam ci yoonu mag yoonu cosaan wi te di ko jaarale ci seen télévision bi GMT télévision bi ñu tuddee grande mosquée de Touba qanaatul jaami al kabir bi Touba bindub naxwu def naa ñi ngi yemoon ci kalaam ak li ci aju bind bii ñi ngi ci bëgg a leeral lan la ñuy xàmmee isim ak lan la ñuy xàmmee fi'al ak lan la ñuy xàmmee xaraf bil jarri wa tanwiini wa nidaa wa alwa musnadin lil ismi tamyiizun xasal ibnu malik nee na bokk na ci li ñu xàmmee lisim lii ñuy waaj a wax al jar suuf foo ko gis xamal ni lisim la lan mooy mask suuf mooy kasar gi nga xam ne aamilul jar lii waral jar moo koy waral moo xam nag day ñëw nekk kasara léeg-léegi comme bi zaydin wala li mën a wuutu kasra lu mel ne nga ne bi axiihi yaa googu moo wutu kasra foofu danañ wax li tax mu wuutu ko foofu ndax am na yoo xamante ne du jar rek kasra aamilul jar bari na léeg-léegi xarafu jar lay doon lu mel ne bi zaydin léegi-léegi idaafa lay doon maalu zaydin nga xam ne mudaaf ilayhi moo tax wala léeg-léegi mu nekk wasf mooy topp lu jar war a jar kon aamilul jar Euh, xarafu jar lay doon wala idaafa wala rek li ñuy wax tabaaya dañ daan wax nag ne lépp dajana ci bismillahi rahmaani rahim lii waral jar lépp bismi xaraf yi moo ko jar laahi ismul jalaala azza kamaalu idaafa moo ko jar arrahmaani rahim aw saafi yàlla subhaanahu wa taala mu tedd moomu la tabaaya moo ko jar mooy bu ci nekk wasf la ci lu ci lu jar kon jar waaye ci gàttal lu mask suuf foo ko gis ak lu ko ca mën a def rek xamal ne isim la tanwiin tanwiin mooy zaydun dun jooju loolay tanwiin am ran ran jooju mooy tanwiin am zay zaydin din googu suuf mooy tanwiin mooy nuun guñ sukkuun guy nekk ci mujjug baat boo ko dee wax te du boo ko bind du feeñ loolay tanwin nuunun saakina talxaqul awaaxir lafzan daa xattan nuun guñ sukkuun day nekk ci mujjug mujjug baat boo koy wax te boo koy bind du feeñ loolay tanwin foo ko fekk rek xamal ne euh, ci lu ñu waral kii la bokk xamal ne xamal ne ci li ñu xàmmee lisim la bokk nidaa xarafu nidaa lum jiitu xamal ne lisim la nidaa mooy lu yaag nidaa jiitu wala mbokki li yaag nidaa gi yaa Zayd yaa Amr ak yu mel noonu ak yi koy wuutu léeg-léegi yaa ayyuha nangam façon nidaa la ak yu noonu waaye nag nañ xàmmee yaa nidaa ak li ñuy wax yaa ak tanbih yaa ak tanbih ay yaa laytaag ak yu mel noonu yaa rub yaa xabaza façon yu mel noonu yaag tanbiih la waaye du yaag nidaa mooy yaa kon boo ko xoolee arafu nidaa mu dugg ci loolu dul isim nga gis ko mu dugg ci ay xaraf wala laneen wala laneen rek xamal ne génn na cosaanam bokkut ak yaa gi tax ñu wax ndax ñun yaa gi ñu wax ñun ci isim rek lay dem mooy yaag nidaa wa qabla luy wa qabla layta rubba xabaza bi yaa fa kun munabbihan wala tunaadi yaa yaag boobu yaag tanbiih la ko boroom xam-xam lañ al alif ak laam gi nga xamante ni ak goog maarifa la ba tey daañ ci xàmmee lisim uxuñ nag laam gi nga xam ne goog mawsul la alif ak laam mooy alif ak laam mi nga xamante ni mën naa dugg ci rajulun al rajulu kitaabun al kitaabu baytun al baytu al xaylu wal laylu wal baydaau taarifu nii wa sayfu wal rumxu wal qirtaasu wal qalamu loolu moo tax ñuy wax waaye nag waxuñ alif ak laam gi nga xam ne goog mawsul la ndax alif ak laamu mawsul insha allahu taala danañ jàng ci bind yi ci kanam ne léeg-léeg sax mën naa dugg ci fial wa kawnuha bi mu'rabil afaali qal ndax loolu mën naa dugg ci fial léeg-léegi ma anta bil xakamil turda xukumatuhu wala al asilu wala zirra'i wal mën naa dugg ci loo xamante ni fialul léeg-léegi kon moo tax googu taxut di wax ñun gi tax ñuy wax rek mooy goo xamante ni alif ak laamu maarifa lay jëriñ wa musnadin lil ismi tamyiizun xasal bokk na ci li nga xamante ni ba tey des na ko xàmmee lisim mooy musnad mooy isnaad la jublu isnaad ilayhi mooy loo xamante ni mën nga ce wéer dara loolu ci misaal boo ne qumtu jalastu katabtu iza katabtu taa googu nga xam ne da ngaa ci moom bind mi taa googu nga xam ne da ngaa ci moom toog gi taa ak faayil googu loolu ism lay doon mooy loo xam da ci da nga ciy dara loolu ci misaal faayil yooyu wala lu mel ne mubtada masalan boo ne woon ana muminun ana taalibun ana nangam ana nangam ba tey benn la ndax mubtada bi da cee ask da nga wéer jëf jooju man ab jullit laa jullit gi da ko ask ak kii ci yow kon li nga xamante ne da ci wéer ci moom ab atte ci jëf loolu ba tey li sib la jox naa la ci misaal lu mel ne faa'il jox naa la ci misaal lu mal ne mubtada kon loolu la ibnu malik ba koo xam ne li ñu xàmmee li si bokk na ci bil jarri wa tanwini wa nidaa wa al wa musnadin lil ismi tamyizun xasal bi taa faalti wa atat wa yafaali wa nuuni aqbilan na fi'lun yanjali fi'al lan lañ koy xàmmee li muy waaj a wax bari na bokk na ci taa faalti wa atat mooy taa ak fail faaltu faaltuma faalti atat taa taani su saakina ba tey bokk na ci li nga xamante ne def na ko xàmmee fial bi taa faalti wa atat wayaa ifaal yi mooy ak yaa gu mel ne li gi nekk ci ifaal yi mooy yaa ul waaxida al muxaataba kenn ku jigéen ki ngay waxal ifaali uqnuti li rabbika usjudi warka'i ma raaki'in loolu ba tey bokk na ci li ñuy xàmmee fi'al euh, fi'al mooy taa'ul faa'il nekk ci taa'ul faa'il ak nu mu mën a soppi ko rek taa'u ta'anis saakina nekk ci ak nu mu mën a soppi ko atat yaa'ul waahidatal muxaataba mooy yaa kenn ku jigéen ki ngay waxal ci jàkkaarloog moom nu mu mën a mel rek xam leen ne fi'al la bokk na ci li ñu xamee fi'il ba tey wa nuuni aqbilan na fi'lun yanjali nuunu aqbilan na mooy nuunu tawkid waaye nag ñaari façon nuunu tawkid moo am nuunu tawkid guñ wayefal wala gu waaye yëpp def na ci xamee fi'il moo tax ñenn ñi sax dañ daan taswib bay bi naan wa nuuna it tawkid yi fi'lun yanjali ak ñaari nuunu tawkid yi bokk na ci li nga xamante ni ba def na ci xamee fi'il moo xam nuunu tawkid gu woyof la moo xam nuunu tawkid gu dis la kon xam leen na taaw faali faalta faaltu faalti ba mu jeex atat taaw euh, ku jigéen dégg nga niki noonu ba tey yaa faali yaa aw euh, waa ku jigéen ki nga xam ne moom ngay waxal taaw taani saakin ak yaa ul waaxital muxaataba ak taaw faali ak nu ñaari nuuni tawkiid foo ko fekk rek xam na ne fi'il la moo tax kon boo euh, borom xam-xam yi danañ ci tegtaloo ci ne ni'ma wa bi'sa ay fi'il la ndax taag yi dina ci dugg ni'mat def na ko wax ak bi'sat ne lawlaa jariirun halakat bajiila ni'mal fataa wa bi'satil qabiila bi'sat ak yu mel noonu euh, kon loolu mat na bàyyi xel taaul fail taaul tanis yaaul waaxidatil muxaataba ñaari nuuni tawkiit yëpp moo xam woyof gi wala diis gi def na ci xàmmee fial siwaahuma alxarfu ka hal wa fii wala ayo siwaahuma li nga xamante ni nag nanguwut màndarga xam nga wax na la isim mandarga yi lay jël wax na la ne la fi'al mandarga yi lay jël siwaahuma mooy li nga xam nag nang wuti mandarga ci ñaari mandarga yooyu du ci jël benn du jël bu isim du jël bu fi'al loolu la ñuy wax xaraf xaraf moom ni ko borom kitaab way euh, ajarum ya waxee rek la wa xarfu ma laysat lahu alaama tarkul alaamati lahu alaama mooy ñàkk mandarga mooy mandargaam siwaahuma alxarfu kahal wafi walam andi lañu ci misaal yu am solo ci xaraf ñetti misaal waaye misaal yi andiwu ko ci noonu rek bu ci nekk daa am lu muy tegtale junju na ne xarf lekk léeg dana dikk nekk xarf mushtarak xarf woo xam dana dugg ci lisim dugg ci fi'al xarf woowu foo ko fekk du liggéey ci dara xëy naa ci maanaam waaye du liggéey ci soppi baat bi lu ma la xelal andil nañu misaal xarf woo xam ne ci leen rek lay dugg ci lisim lu mel ne fii dana ci liggéey ndax dana ko jar lam andil nañu misaal Euh, xaraf woo xamante ni ci fexal dong lay dugg dana liggéey ci fexal boobu muy lam kon xam naa ñetti mandarga kiyam yooyu loolu la ci jublu bi bi yooyu jàllee bi ñu indilee kii yëpp ba jàll mi ñuy indil nag comme fexal yi ñetti façon fexal moo am fexal bu nekk nañ koy xàmmee moo tax mu ne fexlun mudaariun yelii lam kaya cham fexlul mudaari comme fexal ñetti façon fexal moo am fexlu maadi fi'lu mudaari fi'lu amr bu ci nekk la nañ koy xàmme mu tàmbalee ko ci fi'lul mudaari fi'lul mudaari borom xam-xam dañoo xam ne tax ñu tudd ko fi'lu mudaari ndax dañ ne yudaari'ul ism dafa ñuróog ism ndax daañ ko li'raab léeg-léegi ca xam ne loolu nuru na ko ism te daañ leen wax ne fi'l yi ci eh, loolu nuru na ko ism wuute na ci yi ci des fi'lu mudaari nan lañ koy xàmmee def na ko xàmmee ci yël yi lam koy ism mooy loo xam ne lam man na cee dugg lam yalid walam yuulat walam yakun lahu kufuwan ahad lam ci lu mën a dugg rek xamal ne fi'lu mudaari' la lam yasham mën nga ko wax dañ ne lii da ciy junj xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day xam ne man radda wafdal muslimin lam yasham raihatal janna kon lam lu mën a dugg rek xamal ne fi'lu mudaari' la wa maadi al af'aal bi taamis wasim bi nuuni fi'l al amri in amrun fi'l fi'lu maadi ni ñu koy xàmmee nee na bi taa mooy fi'lu maadi bokk na ci li ñu koy xàmmee mooy loo xamante ni taa man na cee dem waaye dafa war na wax rek bi taa ay ni mooy ñaari taa yi ñu doon wax ci bind bee jàll ca jamono yee xam nga neewoon nañ leen bi taa faalta wa atat ñaari taa yooyu fu mu mën a duggee rek xam leen ne loolu mooy fi'lu maadi moo tax sax ñenn ñi dañoo tasu béy ne dafa war na wax ne wa maadi al afaali bi taa ay ni sim bi nuuni fi'l amri in amru musim kon fi'lu maadi ci taa yooyu ci lañ koy xàmmee ñaari taa yooyu jàlloon taa ul faa'il ak taa ut ta'anis saakina wasim bi nuuni fi'lul amr in amrun fihim fi'lul amr nuñ koy xàmmee ci ni ko ibnu malik indee ci xulaasa mooy nuun man cee nekk ba pare in amrun fihim ci ba pare mu am siixa boo xamante ni def na ci dégg talab ak sàkku wa maadiyal afaali bi taamis fi'lu maadi def na ko xàmmee ci ñaari taa yooyu ñu wax fi'lul amr ci ñaari lañ koy xàmmee nuun noonu tawkit man cee dem ba pare it in amrun fihim ba pare it ñu man cee moom mu am siixa boo xamante ni siixa talab la daañ ci déggee talab bu fekkee benn charte manqué na ci boo xam ci fi'lu mudaari' la moo xam ci fi'lu maadi la moo xam ci fi'lu amr xam leen ne loolu ismu fi'al loolu lañ koy tuddee loo xamante ni gis nga maanaam fi'lu mudaari' dem ci ca mandargay mudaari' mënu cee dem ismu mu mudaari' nga koy tuddee loo xam ne gis nga maanaam maad yi nekk ci ca mandargay fexlu maad yi mënu cee dem ismu fexlu maad yi nga koy tuddee loo xamante ni gis nga mandargay euh, fexlu mudaari fexlu amr mënu cee dem ca mu yor maanaam yi xam ne ne ismu fexlu loolu nga koy tuddee loolu kon valable na ci ñett yi jàll yëpp donte moom nag ci fexlu amr rek la ko andee mu nee na moom wal amru in lam yakul nuuni maxal bu fekkee da nga gis loo xam ne talab la waaye nag nuun gi mënu cee dem fii huwa ismu nahwu sax wa xayaal boo gisee lu mën a sax noppil xayyaal jublu sil ak baat yu mel noonu nga gis ne euh, mandarga yee mënu cee dem ci fi'lu amr nga xay nuun nga mënu cee dem ismu fi'al nga koy dégge boo ko gisoon ci fi'lu maadi it comme li ma la wax rek loolu ismu fi'lu maadi nga koy dégg nga koy tudde boo ko gisoon ci fi'lu mudaare loolu ismu fi'lu mudaare nga koy tudde moo tax sax ñu bare bari euh, leen ci boo xam yi dañoo tax suy bayit wi dañ ko dañ ko waroon dañ ne da ko waroon def ne xamante ni dana walaabal ci ñetti mandarga misaal yi jàll yëpp wa maa yakun minha li xayri si mahal fasmun ka hayhaata wa sa wa hayyaal nga xam ne yi jàll yépp dana ci mën a dugg nga xamante ni du doon mandar misaalum fexlu maadi rek euh, moom mi fexlu mu daara fexlu am rek la ci indi ci misaal waaye lim luñ la ci wax rek mënees na la ko wax ci fexlu maadi mënees na si na la ko wax ba tey ci fi'lu mudaari gi nga xamante ni jàll na mooy loo xamante ni maanaam yi nekk na ci ca mënta jël mandarga yi ismu fi'l tuddee loo xamante ni ba tey euh, moo xam bu dee ci fi'lu maadi ismu fi'lu maadi nga wax bu dee fi'lu mudaari ismu fi'lu bu dee fii ismu fi'lu amr loolu kon lu walaa ba la ci ñett yëpp wal amru in lam yakun li nuuni mahal fiihi huwa ismun moo tax ko ko wal la jubloo maa yakun min haali xam nga fi'lu maadi la sa eh, eh, noppil uskut waxa yaxal mm-hmm. ismu yi la bëgg a andi tey li ñu tuddee al mu'rab wal mabni xam ngeen ni cosaan ci lisim bokk na ci cosaanam dañ ko war a leen arab dafa war a nekk mufrad dafa war a nekk nakira dafa war a nekk buy soppiku arab yi nag dañuy wax ne man laazama aslahu la yasalu amma bihi nit ki bu fekkee dafa nekk ci cosaanam kenn du laaj li lu tax ndax loolu yéemeetut moo tax ismu kenn du laaj lu tax ñu du ko leen arab fi'al cosaan li dañ ko war a binaa moo tax kenn du wax fi'al lu tax ñu di ko binaa ndax dafa taqoog cosaanam waaye nag lisim buñ ko binaa war ngaa laaj wàllu waral li fi'al bu fekkee dañ ko li arab war lu ko waral wax naa leen léegi ne fi'al mudaari fi'al yi li ñuy li arab dafa niroog mudaari ism looloo ko waral dana ñëw léegi allah allahu taala wa a mudaari an in ariya min nun tawkil bam ci dégg nga al ismu minhu mu'rabun wa ibni mu ismu ñaari façon ismu ñoo ñoo am ismu mu'rab ismu mutamakkin euh, ismu buñ laaraab nga xam mooy cosaan ci lisim wala mabni fi'l fi ism boo xamante ne dañ ko binaa loolu moom faran la ci nga xam ne du mutamakkin dañ koy tuddee bu fekkee dañ koy li'raab ba pare di ko muy soppiku la ñu tudde mutamakkin amkan waaye nag isim kañ lañ koy binaa li shabahin min al mudni isim bu fekk balañ ko binaa dafa niru xaraf niru gu dëgër shabah qawi wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al mudni mooy isim am na bu ñu am na bu ñu binaa balañ koo sañ li'raab nag day niru xaraf niru gu jege waaye da nga ciy dégg ne kon bu fekkee ne nuruwu ko day dellu ci cosaanam rek bu fekkee wala boog mu nuru ko nuru gu néew doole it ba tey day dellu ci cosaan al ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al xurufi mudni lan la koy niru ci ña ci ci ci ci ci ñeenti façon niru la koy niru ñeenti façon nuru yi mu koy nuru mooy ban ak ban ka shabahil wadayi fi sumay jitanaa wal maanawi yi fi mata wa fi huna wa ka niyaabatin an il fiili bila taassurin wa kaftiqaarin asula shabahul wadayi moo binaa xeeti damir yi nga gis yëpp ndax damir yi xaraf shabahul wadayi fismay ji itanaa mooy li binaa ñaari isim yi nekk ci ji itanaa muy taggi ak nuun gi ta fail nuun gi mafoolun bihi ta benn xaraf la nuun gi ñaari xaraf la dafa niroog niñ tëree xaraf xaraf lu bare bare xam nga dañ koy tër mu nekk benn araf ñaari araf shabaxul wadai loolu moo binaa damir yëpp tax mu ne ndax loolu dafa niroog niñ tëree araf loolu moo binaa xeeti isim yi nga xam ne yëpp cosaan li dañ koy tër mu nekk benn araf wala ñaari araf loolu nag da nga ciy dégg ne mën ngaa gis damir bu nekk ñetti araf comme naxnu waaye danga naan rek xumilal aksar ala al aqal wala aqal ala aksar dañ ko ak yi ci des rek wal maanawi yi fii mataaw fii huna am na lu ñu tuddi shibahul shibahul maanawi mooy isim boo xamante ni dafa am xaraf wu mbokkal maana indi na la ci misaal ne moom binaana mata ismu isha ismu istifham huna ismu ishaara ndax euh, dafa am isim la yi yiñ gis yoo xamante ni dafa am xaraf wu mbokkal maanaa nga xam na ko wuutu daanaka rek ci lafzu mën na ko wuutu ci taqdir mata mën naa ñëw mata mën naa ñëw nekk ismu charte mata taqum aqum ca adaat charte yi yëpp am nay xaraf lu in charte yi ak yu mel noonu nga xam ne ñoo niroo huna ba tey ni ki noonu ismu ishaara ismu ishaara dañuy wax ne ishaara amut waaye comme ishaara dafa nekk ci xeeti maanaa yi ismu ishaara dafa nuroog xarafu ishaara wuñ nattale wal maanawi fii ma u fii huna mooy shibahul maanawi nee na mooy li nga xamante ni moo moo moo moo moo moo moo moo moo binaa ismu adaat ismu istifhaam yi nga xam am na yëpp ndax xaraf istifhaam am na ni ki noonu ba tey asma shurut yi am ndax xarafi charte am na huna ba tey euh, dañ ne rek dafa yor maanaam araf ndax dañ ne ishaara dafa yor dafa bokk ci maanaam araf yi donte nag alaa bi tegaluñ ko ko looloy ka shabahi al ismu minhu mu'rabun wa mubni li shabahin min al xurufi mudni ka shabahi al wad'i fi ismay ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna shabahi al ma'nawi euh, shabahu al wad'i moo binaa damir yëpp ism boo xam cosaan dañ ko teg benn araf wala ñaari araf indi na ci misaal damir yëpp damir boo gis rek niroo naag benn xaraf bu mën a doon xaraf masalan taa ak nuun gi benn bi bu la neexee na baaul jar wala yaa wala laamul jar bi nekk ñaari araf bu la nuru na xat nuru na min wala yu mel noonu shabahul maana wi mooy isim boo xamante ni nee naa la dafa bokk ak araf maana moo xam maana ism boo xam dafa am araf bu mu bokkal maanaa wu feeñ wala maanaa mu nattale dina ci misaal mata ak huna mata mën naa ñëw mata chartiye ca xarafu charte am na muy in chartiye dégg nga mata in istifhamiye ba tey nikk ki am na ca xarafu istifham am na muy hamzatul istifham huna dafa niru maanaam charte buñ nattale ndax huna xeeti ishaara la ishaara dafay yor maanaa maanaam bi nag donte arab yi waroon nañ ko tëral araf te tëgaluñ ko ko waaye kon dañ koo binaa ngir xaraf wuñ nattale des na nag beneen shabah boo xamante ne incha allah danañ ko wax ci bind bi nga xamante ni mooy ñëw baax ñaata mi waj'al binaa'iya binaa'a ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi